ci côte di buñu démé ci doodaan bi ralentir buñu gissé passage au piéton ñu xam nañu fu ñuy jaar ba nga nag indi ben accident teg ko ci yoon cabaret moto yi. album bi ñaata titre la am. waaw album bi dañ defoon ay son dég son yooyu dañ koy jël bolé ko ci mais comme dëkk bi légui il faut ngay génne single ñamar ko nit ñi ba mu tàng boole ko son yi nga defoon bolé ko def ko nak album.

ba yàlla def affaire yi décanté wu nag euh, pirate bi wàññeeku incha allah rabbi bu munul jeex mu wàññeeku ñu mën a génne parce que boo nee toog di xaar loolu doo mës a génne at boobu. la euh, allah ñu ngi prévoir fii deux mois incha allah mars daal parce que mars la woon anniversaire les amazones. Mm. le 14 mars mais dañ koy décentraliser yóbbu ko ay Saint-Louis wala ci yenn ci région yi daal. Mm. wane na ñoom tam ci lañ bokk. Mm. léegi sànq dama dugg ci Fes Dakar. di mm-hmm. am ñu

jëkkër yàlla daa koy xam nga ñun liñ faatu géwal naan suñu njaram lamb mais lamb mais man sama njaram dama jàpp ne lamboo parce que jëkkër ñun suñ ko bëggoon allo góor ñëw kon yaa ko dañuy liital bàyyi yaa ko bëggul yaa ko bëggul léegi question man jigéen principe laa te mm-hmm. projet man damay teg projet mm-hmm. man du man nag góor takk ma tey suba ma toog di dem di demander ay social maa ngi liggéey maa ngi sama boulot am naa doom mus naa sëy je n'ai macha allah mu bëggee dem samay business maa ngi business dem partout dans le monde macha allah aw ma dara lu may téye lu dul yàlla xëy na yóbbu ma te maa ngi ñaan yàlla gudd fan macha allah sinon jeune la am naa volonté wu liggéey damay fayti ba tax na jëkkër moom donc du du du lu ma yàkkamti daal lu ma waaw mais maa ngi teg projet ndax koy dund ci àdduna. daal mm. jigéen moom sëy la mm. mais nañ teg projet.

gis nga fim mu toll nii artiste bu yor micro sax yor ay affaire yu noir yi sax man dama bëgg nga seet si man ndax yii yëpp xale bu fi rafet rek ci man nga jaar ndax teint bu rafet balaa ngaa sañse bu jàpp fokk sa teint rafet fokk nga sañse def tay bass yu baax te ku ñëw nag Amazon boutique sama magasin ma defanteeg yow yu baax ci yooyu lay yëngu lépp luy luy indi feeling ci jigéen yokk sa taar yokk sa yaram mu rafet man ci yooyu lay yëngu donc bégal sa xol bégal sa ki ngay bëgganteel I love you love me ci yooyu laay dox ak xale yi Sénégal. revient sur Beyoncé. ok oui c'est, c'est la Beyoncé et c'est la l' Abi Mag. Mm-hmm. waaw euh, solo. Mm-hmm. solo dafa doon loo xamante ne sénégalais daf ko nar euh, dafa dafa dafa bokk si si si bés yi si àdduna wala. si àdduna waaw solo dafa bokk ci àdduna dafa bokk ci nit. ndax nit ci solo war nañ la ci respecté sol solo correct plateau bu nekk ak li mu laaj. su dee ay interview la nga toog def tailleur bu baax su dee ay euh, cérémonie euh, baptême la nga def sa tay baas bu am maanaam su dee mariage nga xool sirène buy ci façon ñun si yooyu la ñuy yëngu affaire u sañse affaire u mot affaire lu taaru jigéen sentir bon balaa ngaa sañse sa teint bu rafetee danga war a romb nit sentir bon yooyu ndox yu baax yooyu ci yooyu la ñuy yëngu daal. waaw da nga xalmate nag Beyoncé dina la ko faral di wax wala. waa Beyoncé moom dama dama ko bëgg. ay feeling am ci ay dégagement nek nekk bête de scène taxaw tay ji suñu amone baat ci réew mi wala bu défé dara kenn duñu critiquer waye photo bi wala photo ba li muy def la lañuy def taxaw imposer montrer suñu talent franchement ñun dañuy dund suñu aar am ay talent te mënuñu ko exploiter mais nak suñu joxé opportunité bobu rek dinañ xamné la Beyoncé de def États-Unis dañ def pur bi di yëngal seen fekk seen mu sedd koy ñu ñëw chauffé ko ñun foofu suñu foor foofu la te ñu ngi koy sant yàlla. maîtresse danseuse nga donc euh, mhm. xale yi nga xam ne dañuy ñëw pour dugg ci danse bi. yan mhm. conseil nga leen di jox. Euh, conseil yi ma leen di jox mooy euh, chorégraphe man maître chorégraphe la li ma sama ay maître jàngaloon laa leen di jàngal suñu ñëwee duñu ñëw rek ne mën nañu parce que léegi ku jóg rek ne mën naa fecc fecc dañ koy jàng. xam chorégraphie ban pas de danse ban pie mooy njëkk a ban loxo mooy mouvement d' ensemble yi nan ngeen di mën a def ba leader bi bu yéegee ci seen créer ay tablier créer ay drame yoo xam ne ne donc leader bi day fier ci li nga xam ne ne moom la ñu indi loo xam ne day méngoog la muy way ñun ci yooyu dañuy ñuy yëngu tegal la loolu tegal la toni bi bu dee yeelaa la da ngay sol style alpulaar def ay lettu pulaar def yeelaa pulaar bu dee balante la da sol yére balante bu dee sóoru bu dee feccu sabar la def africain def sa baxa bu baax tagal musóor bi def fiso bu gudd def façon. gis nañu que li ñu lay critiqué bari na trop mais mm-hmm. tu forte. Ah fan nga force boobu fan la jógee. force boobu kii euh, dama ko jël ci Seydina Muhammad prophète jëlaat ko ci samay waajur jël ko ci bi ma nekkee enfance nekk xale ba ni ma nekkee lii dund ma leen lu neex li ma dund yëpp ay ay affaire la li Youssou naan euh, fii ku fi bëgg a tekki di nga léewatoo dëgg la. man dunduma ci lenn lu neex moo tax ma ne même jëkkër ma koy am bu mënul faire plaisir ma dund lu neex je préfère rester comme ça là c'est vrai parce que li ma dund la te li ma dund donc kuñ ko waxoon say larmes génn mais damay forte léegi donc dootuma jooy damay dëgër xam fi ma jëm. parce que même propre si si si si liggéey booy teg sax pour jéem ci tekki sax wala di ci kedd donc lu dul lu dul milieu musique lu dul milieu culture li nga xam ne say business sax dañ la ciy jéem a def ay coups bas c'est pour ça dëkk bi boo fi bëggee nekk il faut nga forte ñu lay jam ngay naaj ba siit ba taxaw deret bi taxaw dinda deret bi rek demaat loolu moo lay may ndam ëllëg te doo ko yaakaar ci xaalis góor doo ko yaakaar ci utiliser sa yaram da nga koy yaakaar ci liggéey kuy dugg ci aduna nak amul koy bëgganteel am nga ci tam ci même mais lepp amul. kon am nga jotam wa lepp ci projet rek la ko teg. Hmm. lan mooy sa dernier mot. si bi jëm ci kanam euh, di ñaanal waa TFM di ñaanal wa site bi di ñaanal wa Sénégal jamm di ñaanal culture bi jëm ci kanam ak yene buñ ci am ak souhait bi ci am yépp yalla ko yalla moxtali di ñaanal artistes yi nga xam ne ci sen art bés inshallah société bees bi ñuy wax bu ci yalla andé bu ñëwee yàlla nañ dund seen aar ñii di fayeeku audiovisuel ñii théâtre kat yi danseurs yi ñëpp incha allah coono dina jeex nañu jàpp muñ gëm suñu bopp bañ ko yaakaar ci kenn koo xam ne ne daf ñuy santage kaay ñu yóbbu la fii pour def lii kaay ñu may la lii pour def lii kaay ñu kii nga nga jël sa honneur jël sa dignité def loolu ba pare dem loolu def ko ba pare tëdd sa néeg di jooy parce que kooku lim la soxla woon jeex na ci benn bout de temps nañ delloo si waat xel yi. kon euh, dañ lay proposer ay propositions indécentes. day am ci suñu milieu am ci ndax yow dal na la yow personnellement yag nañu dal mais pour nga am tam am lolu du yomb parce que man am na luma jital bo jëlé jëlee teranga tek sa kanam jël personnalité tek sa kanam jël né ëlëk dama wara am sama jëkkeur and ak mom mu lonk ma ma lonk ñu dem ci yenn place yu am manay goor bu ma xol dama lay xol dama lay xol né la jàkk parce que je n'ai rien à peur pour bañ la xol wala di la làqatu ah non en tête ko la lay xol parce que je suis fière de moi